auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Mohamed sant suñu ñaari waaju sant suñu wàcc Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziyaare te di leen balu ak ñi nga xam ne saa su yéen a baaxoo di jàkkaarloog Waarwi TV nekk alalu ci Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jiital ci nuyoo bi nag sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ Mountakha Bachir di ko ñaan suñu borom guddal fanam lool te wérali cëram di nuy bu baax di ziyaare suñu Seex Jëmb Fall di ko ñaanal bu baax moom it Fall yàlla na yàlla guddal fanam lool te wërale jërëm di nuyu mboolem kilifa diine goo xam ne yaa ngi fii ci Sénégal rawoon na département bi rawoon na dëkk bu sell bii di Touba. tey nag yoonu murid am na ndam ndax saa su ne ci ndam lan dëkk waaye tey jii moom da caa rawati ndax Serigne Mountakha Bachir ci mbaax ga ak yuugu ak bëgg gi nga xam ne bëgg na ko yàlla yonent bi si Ahmadou Bamba Xadim Rasool cofeel gi nga xam ne am na ko ci xasida tey ku taxaw fii ci dëkk bu sell bii di Touba di fukki fan benn ci weeru ut ñu koy wax ñaari fan ci weeru tamxarit di atum julit tey gi fi taxaw fii ci Touba saxool dafay sedd sa xol dana yëngu ah, da nga mën a wàcc sax ay xéewal ndax kontaan goo kontaan goo xam ne ci yoonu murit kontaan goo kontaan goo xam ne sëriñ Mountakha Bassir ni nga xam ne noonu la yore yorom yoonu maama wii muy muridula ànd koog rakkam yëpp nag ak seex yëpp nag ak képp koo xam ne rek jullit nga ànd nga ci bis bi rawatina nag rakkam yi nga xam ne moom na bokkal maam maaram sax laay wax ak rakkam yi nga xam ne moom na bokkal adduna la ñuy wax ndax sëriñ Mountakha Bachir mooy nit ko amul noonu ñëpp ko bëgg balay sax ñu koy ñaanal gudd fan lool lool ak wér te yàlla bàyyi ñoo moom ñuy ànd ak moom liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci dëkk bi sell bi di Touba adduna la ñuy wax ndax sëriñ Mountakha dem na ba nga xam ne addunaa ko moom sëriñ ba Bassirou adduna la liggéey bu sell bi muy liggéey ànd ko rakkam ju baax ja ah, muy kan sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ sooy bu Mbàkke sunu sëriñ moom la àndal liggéey bi sëriñ Amsa ku ne xam ko ci xasida nim ko daan màggale tey jii nag ah, mu nekk bis bu sell bisub ngëneel bisum ñaan di ñaan suñ borom ci kattanam ak mën-mënam jàngoro ji nga xam ne ñi ngi naan mi ngi ci àdduna si yàlla na ko fi yàlla jële ci barke xasida yi mboolem nu ñaan ñu fi ñaan rek yàlla na ko suñ borom nangu ban amati ndam ndax saa su ne ndam rek la ñuy am mu murid ci ndam lañ ko xam ci ndam lañ tënku ndam rek la ñuy am ndax si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ba muy dem ca géej ga ba ka noonu yee jël bu xamoon ne résultat bi lay joxe bu boobaa noonu kenn du ko laal mais Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul demam ngam demoon ca géej ga maa yombi ak fu ko mën a yóbbu tey ñun murid ñoo ci damu tey fierté la ci ñun tey bis bi ku taxaw fii rek ci Touba da ngay kontaan bég nga xam ne Serigne Touba amati na ndam ñun ñëpp danoo war a jaajëfal Serigne Touba Serigne Touba amati na ndam. ko bii bii gis bii bis xam ne benn bis rek la ci àdduna le 11 août bi histoire da koy bind kenn dootu ko fàtte kon nag di ñaanal sëriñ Mountakha Bassir mu yàgg fi lool lool te wér andi ko taalibe yeeg donga yi ak sëriñ Amsatou Mbacke Soñ bi mi nga xam ne moo koy gunge ci yoon wi di doon na sunu wasila ndax ñun waa kër sëriñ Soñ lan kon na ngeen ànd ak ñun ñu woon leen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi naka lañ ñëwee ci bis bu sell bi naka lañ taxawee taxawaay bi nga xam ne sëriñ Mountakha Bassir moo ko digle kon nag ci kaanaramaan ma ànd ceeg sama xarit sama doomi ndey sama lepp muy Sané ci kaddu gi soxna maam a Seck ànd ca rési ba Bas ak sëñ seex Samb ak ñëpp ñoo xam ne mooy équipe bi nga xam ne ñoo leen àndal ci Waarwi TV tey taxawaay bu dëgër lañ ci amee kon nag ginnaaw na sëriñ Mountakha Bassir yal na yàlla guddal fanam te wéral ko di gërëm sëñ Touba mi nga xam te ne moo waral lépp nag bis bu tey bi sëñ Mountakha ñu koy ñaanal mu yàgg fi ndax lépp mooma sëñ Mountakha ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax ndax lim lim maanaam lim lim yéen ci bis bi ca xam xam ngoon mi ci moom dong moo kon ñoo ngi koy ñaanal mu tajek amin yàlla subhanahu wa taala mi nga xam te ne moo sàkk jaam yëpp suñ tubaa moom mun ñu koo fay ndax yoon wi boo gisee ni mu doxe nga xam ne mooy yoonu murid moom amul tànk yi ginnaaw tànk na ma nga am ndax mbooloo mi nga xam ne moo fi ñëw tey man ne ba ma dara màgg sàgg na waaye mosuma ko fee gis kon jàpp naa ne yoon wi moom bërigo bu taa bu jëm ci mbatta boo tegee sa loxo mu teg mu dem boo tegu mu dem kon nañ ci jàpp ñëpp ndax fu ne mu ci jamono nekk liggéey suñ tubaa moo wóor nan góorgóor bu baax a baax def suñ ñaq suñ doole suñ lun man rek nan ko def si yoonu Sëñ Tuubaa te xam ne Sëñ Tuubaa da nga fa nekk man bokk man na moom baax bëgg Sëñ Tuubaa rek fa nekk nan góorgóor bu baax a baax a baax a baax képp kuy murit na nga góorgóorlu ci liggéey Sëñ Tuubaa xam ne Sëñ Tuubaa moom moom rek moo fa des moo moom rek moo fa nekk jàpp ci jàng du ne ci xasida di ci def lu man di ci jàng bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ci yéene nag waaye yéene waaye fas moo ko yéene ci xasida yi te xam ne incha allah jot. ñu nuyu la ziar la fekk la fii ci bis bi nga xam ne yoon murid daa am ndam yow ngay laaj addiya Mbàkke. waaw di sant Serigne Touba rek ak suñu ñaari waajur moom mi ñu boole ci kër gi tey mu nekk loo xamante ni suñu xol sedd na ji trop képp kuy murid rek tey jii nii bisu mbégte la ci yow wax dëgg yàlla Serigne moom kenn la amul morom tey sunu xol dafa sedd fi ñu toll nii dañuy ànd ak mbégte bu wax dëgg yàlla mënuñoo wax ndax xol bu fees kontaan nañ trop. xasida yi naka nga ko dund tey ak tey bis bi ni ko gisee lan ban yëg-yëg wax dëgg yàlla yëg-yëg bi ma ci am moom sor na ci man trop ndax démb ci takkusaan rek ba léegi maa ngi ci liggéey bi ci laa ko commencé di yëg sama bopp nga xam ne Serigne Touba kenn la amul moroom di ñaan yéen it seen taxawaay yàgg te wér rafet na ànd ngeen koog ñun wax dëgg yàlla sunu xol sedd na trop. yéen ñaanal fan bu gudd ak wér gu lépp lu ngeen di wut suñu borom defal leen ko ngeen tase ngërëmu Serigne Touba ngeen jëf. am. Ah, xam nga yëg-yëg bi moom li ma am rek moom la ñëpp am mooy ndamal Serigne Touba ndax danoo nekk ci réew moo xam si daanaka dañuy xeex diine te Serigne Mountakha di wane boppam saa su ne ci ci bëgg ak ak bëgg diine bëgguk lislaam xëy si maanaam ñun amuñu leen lu dul lislaam te suñ Tuubaa wootewul dara loolu islaam muy murit ak xaadir ak laayeen ñëpp la woo na ñëw jàng xasida jàng alxuraan ñaan corona bi jóge fi ci jàmm ak salaam réew mi lépp nekk delluwaat fa mu nekkoon mooy naataange yàlla na ko suñu borom defal di sant ñëpp maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yi. doon nga nekk jeune euh, tey nañu gis Sëriñ defaree xale yi jàng ba am alxuraan ba ne mut fees dell la njàngum ba pare doonu dongo. Serigne Touba daanaka ci yar ci yar rek moo ñu indi woon ndax suñu borom dafa wax yonent bi waaye innaka la ala xuluqin mooy tedd jikko te Serigne Touba defar lu dul ay jikko te maanaam xale bala nga ko yar defar jikkoom xam nga da euh, sëñ Sambay da koy faral di wax na jàngal xale bi alxuraan ak xam-xam pare jiital ko mu dem ci français boobaa bu egee dana raw ay moroomam te dana xam nu muy téewe àdduna te ñun Serigne Touba dañoo jàngal boppam mooy dafa jëf ba pare bind boole lu baree baree bare ñun ñu di ko gis teg suñuy bët donte ay jeunes lan waaye xam na ne li muy woote mooy lu wér ndax lépp loo xam ne si wérul du yàgg. ñu gis na nag yow ngay def moom lu neex ndax yoonu murid daa mel ni waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax baax ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi sant Serigne Touba bu baax ñu nag dañoo am lu dul Serigne Touba moo tax te lépp luñ mën a def rek Serigne Touba lañ koy defal suñu jëmm yeeg suñu ruu yeeg suñu lépp sëñ Tuubaa lañ koy defal kon lii rek lañ man def ci bégalee ko bis bi kon sëñ Tuubaa la ñuy sant dañuy sant euh, Cheikh Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér dañoo kontaan ba mënuñoo wax daal wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yéen tamit suñu borom defal leen jàmm a baax barke Seexul a baax yaay Fall ñu fekk fii ci bisu xasida bi naka nga ko dundee waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu waa mbokki Touba yëpp waaw man la soxna Jaara Caam jóge ba Dakar ñëw fii ci bis sëñ Mountakha bi waa ñun amuñu lu mun Muntaxa ndax ñun sëñ Tuubaa rek lañ yaakaar bu sëñ Tuubaa wootee ñun ñëpp dañuy bàyyi lu ñu jàppoon ñëw tey lañ bàyyeekoo Ndakaaru ñëw ku xool lii rek xam ne àdduna bi yëpp sëñ Tuubaa fi nekk barke sëriñ Saalu mbégte mi yokku na kontaan nañu lépp lu fi waay indi di soxla yàlla ko suñ tubaa safa lépp lu fi nekk di tawati ñu koy jàmbat yàlla ko suñ tubaa dàq suñ tubaa rek a fi nekk baak suñ saali daa mel ni ñun suñ tubaa dafa mel ni ñun murit euh, ñun xooluñu suñ tubaa rek ñuy teen dëgg gu wér peng parce que boo xoolee di rek xam ne ñun moom dunduñu loolu ñun dunduñu loolu ñun sëñ Touba kese moo ñëw suñu dundoon loolu dëgg-dëgg murid mooy lii barke Sëriñ Touba ñëpp tey kenn ñëpp taxaw fii tey ñii ñi ngi ba Dakar fajar lañ fi agsi ngir jaayante rek kon lépp lu fi waa indi yàlla ko sëñ Touba fay bi xaani lil jinaan an xaswaatin زمان ما خابوا للخدام فلنحمد الله على نجاتنا ممن خالى كل kulli sharri musjala bil mustafa al muqaddami inni ukhatibul jamil fi hiwafil alil udud وصحبه بلا خمول بصليا وسلم يا ربنا يا ربنا يا خلانا يا حبانا صلي على سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وزيد تعالخ بي من أولياء حزبه ولتتقبل خلامي وردعاني صحب الكرام ردا يا خود للمن وليكن يا ذا الأنام بلا عيد أو ولام واذكروا نفسي لتقبلا لوجوهك المكرم يا ربنا صلي على محمد وزيدوا على أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضيلة محمد وعاسيلا كتاباتي وسلمي يا ربنا صلي على